yéen jigéen am lu Avenir Events votre agence de marketing communication événementielle vous présente la deuxième édition d'exposition des femmes entrepreneuses de Thiès sous le thème Jigen Jàmbaar Sénégal Thiès Angie Production. Sumasanyo, palm the fair, No, no, no, no. banku, conte gento No, no, no, no. Sumasanyo, the fair, No, no, no, no. banku, conte gento No, no, no, no, no. mom de mom de Mana buy samawa Muma maneja pale bepujigen Gichona wakile Cuando febrero perla rege Irmana buy samawa Irmana maneja pale bepujigen amis téléspectateurs de la scène 24 TV voilà dañuy amati mbégte ak contentement ci di jàkkaarloo gene ci sen émission bu neex bi ci heure bu baax bi ci télé bi nga xamante ni mom moy xew ci jamono muy Thiès Feeling ba comme niñ ko done défé fànn yépp ba tey bu ngeen ñu gisee ñu ngi fi nga xamante ni mom moy foire bi nga xamante avenir aven si ñoom amal euh, ñu tuddé ko exposition des femmes entrepreneuses comme niñ koy défé dinañ dugg ci biir femmes yi nga xamante ñom ñoom ñoo fi nekk tey ñoom ñooy les jigéen jàmbaar dinañ am ak ñom waxtaan la ta lolu nak dafa am ko xamante ne ni moom Diougal moom tamit bu bokk ci les jigéen jàmbaar ah, du ñu def lu dul nuyu ko parce que nag wax dëgg yàlla ne naa leen moom it ci yëfi la bokk soxna si nuyu naa la. waa maa ngi lay fay bu baax soxna si. Euh, tur bi naka la. Mbaye Ndiaye la. dañ lay bàyyi nga nuyu waa Sénégal nuyu waa àdduna bu ñu paree ñu doog dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum waa Sénégal waa Thiès rawatina waa àddina ak képp ki may seetaan maa ngi lay nuyu bu baax euh, man la Mbaye Ndiaye dëkk Noto Diobass maa membre plateforme femme leader madame Bakhoum. Mbaye Ndiabaye tay lan mo nekkoon sa taxaway ci li nga xamantene mom moy exposition des femmes entrepreneuses lan nga ñuy indil tay ak lan mo la ci duggal wa man lima duggal ci euh, exposition bi parce que madame Bahoum dama commencé di liggéey ak mom mu bolé ma ci femme leader membre plateforme mom mu nekk suñu coordinatrice vraiment tamit euh, jappalé jeunes yi Thiès bu baaxa baax. mu woon ma tey pour ma représenter fii euh, femme leader fii ci euh, ci foire bi. Mm-hmm. d'accord lan nga ñu indil tey euh, ci li nga xamante ne ni moom nga ñu moom mooy say article yi nga xamante ni moom ngay présenter ci exposition bi. waaw tey li ma leen indil damay commencer ci moringa. Mm-hmm. moringa moo nekk ni poudre moringa bi. Mm-hmm. ma jël bi am étiquette. moringa moom tamit. tourné ko ñu moringa bi moo ngi ne. poudre moringa bi foofu lay commencer. parce que moringa mom dina fajj 360 maladies rek pour à peu près mais limi fajj ci doomu adama kenn mënu ko xam xana vraiment euh, ki bu bax la mhm. produit bu bax la en plus tamit euh, dina la rajeuni dina tax do gaaw màgget en mhm. plus même bo amul diabète mhm. dina tax ba do am diabète mom wexul ba non non wexul da ngay infuser rek wa demain matin d'accord comme tey wa comme tey rek bu si si amoon na moringa mais dafa jeex mais bi mom poudre bi la rek amul dara poudre naturel bi la rek wa wa bi poudre baobab bi la bi mom bi moy 500 gram bi mom amul souf euh, ta xajamul en plus tamit amna hygiène mom poudre bu la nexé man nga def jus bu la nexé man nga def ay galette de baaw nga bolé ko ak sa gingembre aussi mhm. wa bi poudre ñebe bi la poudre ñebe bi légui dañu noppal sama mbokk jigéen yi parce que dañ daan sonu ngay soxu di sebet di wal yooyu yëpp léegi waaw <laughs> ah, jigéen yi amatuñu temps bi léegi da ngay ñëw rek nga def ki sa mixteur mu fuur nga defal sa akara yu neex defal ko sa àllaaji <laughs> waa lii farine Fatima la moom tamit dafa baax ci prise de poids ak xale yi nga xamante ni dañoo xiboon mhm. ak mag ñi nga xamante ni macha allah dañoo bëgg a doon diriyanke mhm. waa bi nokkas la waa bii moom épice la nokkas bu nokkas bu tooy bi la à base naturelle amul magie amul dara parce que ñun ay anti magie dañu dañuy xeex magie Mom tamit benn kudd bi rek mariné na ginaar macha allah parce que def nañ assaisonnement yépp, amna laaj amna lépp da ngay ñëw rek nga mariné. bi nak bi moy secret de famille mom lépp a ngi si xam pour ñukoy koy mom xamnañ bu baax. <laughs> Ah, waa euh, jarul ngay euh, ngay dugg ci détail. voilà mhm. léegi ma gis né du ñambaaru Dakar. non lii ay savon la. Ah, <laughs> lii savon nepp-nepp la. Mhm. savon parce que nepp-nepp bu njëkk dañuy yaakaar ne da ngay jël nga broche wala nga infusé naan. Mhm. mais léegi dañ ci defar ay savon. ay savon dañ ci defar ay savon

d' euh, lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy Avenir Events ak initiative bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu amal. waaw ñoom la dañ leen di sant rek euh, di leen remercier waat ci deuxième édition bi man nag ren mooy sama première édition ma assisté fii ek def exposition. mais xam naa bu déwénee incha allahu rabi buñ ci yàlla yóbboo jaam ak salaam. bu desee 4 mois man laay commencé di defar sama produits parce que dañuy daf ñoo bett li ñu waroon a indi lépp bari na. mais foire bi daf ñoo daf ñoo bett. Mhm.

mais peut-être demain voilà même pas deux mois euh, trois mois dina la jox euh, li nga sax tripler mhm. d'accord merci beaucoup ñu merci beaucoup NG Production. <laughs> am dafee lay doon non non non toog ci banque compter xaalis xeñtu xaalis non non non su ma sañoon femme d'affaires am nañ fi ay marinière ñu yëpp ay marinière la yi ay tunique la yi ay robe la yi ay tunique la tamit yi ay robe la yii yëpp ay robe la tamit yii tamit ay robe la yii tamit ay robe la ay robe la tamit yii tamit ay robe la bee tinig la yii ay robe xale la yii nii ay robe xale la yii tamit ay robe la yii ay mbubu góor la tamit robe dañ ko exposé ni yi tamit ay mbubu góor la yu ñu <laughs> ak ay parfum tamit ñu ngi fi ay déodorant pour tàngaay bi ak ay parfum chambre ak yooyu bagage yi da ñoo ngi nii daal place bi daal fii couture la ñu ngi marché central képp ku bëgg rek moom boo ñu wooyee rek amul benn problème ñoo defar ba mu rek ñaw yaa fi bagage fi fi waa li ñuy wax ci bés bi moom bés bi daal neex na daal waa liggéey bi daal yàlla na jëm kanam affaire yi yàlla na avancé yàlla na ci yàlla def jàmm daal <laughs> merci beaucoup. merci waa Sen 24 kontaan nañ trop ci bés bi yéen tamit jàpp ngeen ci bés bi yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla yokk. laay doo nananana toog ci banque compter to xaalis nananana alal waa duna moom dafay jeex moom dafay jeex tay ni mala ko waxe won rek ñu ngi fi ci foire bi di and ak les jigen jambar ah, ñu fekkon fi nak kenn ko xamanteni neena la mom tamit jigen jambar yi la bok mu exposerel ñu li nga xamanteni ni mom moy sandox bi déjà num tuddu ah, au kangama ah. dañ lay baye nga indi ñu ay leral ci li nga xamanteni ni mom moy mooy au parce que vraiment nak jar di ñi xam ko n'est-ce pas. deug la kay alaykum wa rahmatullah ma leen nuyu di leen cher maa tudu mam Mame Diarra ci exposition jigéen jàmbaar bi nga xamné wa Avenir Emerse ñoko organiser tay dañu dañoo di présenter au Kangam au Kangam nak ñu bari xamuñu ko mais ties gi lañ koy défaré au niveau du ZAC au Kangam nak dafa nekk ben eau bo xamné c'est différent des autres parce que c'est une eau alcaline une eau alcaline manam elle est ionisée dafa am ay ions ci biir y a des ions il y a des ions négatifs dafa am magnésium dafa am potassium calcium toutes les vitamines boo xam ne suñu yaram soxla na ko ndox mi daf mu ci biir mu ngi ci yoo kàngam moo tax mu différent ci yeneen ndox yi boo koy jël daf lay dimbali ci lu bari mu mel ni wàllu métitu tànk wàllu métitu ndigg ñi nga xam ne dañoo am colopathie problème euh, digestion yooyu yëpp dañuy da leen ciy jàppale Nous avons des problèmes de problème de tension dafay réguler sa tension normale Nous avons xam ne am problème diabète aussi des racines seen sucre. ba mu et aussi ça permet de régénérer les cellules. am solo au fait dañu avons xam ba xam euh, première participation ci li nga xam ne moom mooy euh, jigéen deuxième parce que c'est moom deuxième édition bi. Mm, bii deuxième édition. bu njëkk bi samay produit la exposé woon parce que dama doon def transformation fruits et légumes ma ñëw avec ma sama propre entreprise ñun ñoo doon exposé daaw mais ren j'ai préféré exposé Kàngam parce que tamit partenaire laa ci Kàngam maanaam manager laa ci biir daal. au fait euh, est-ce que yaa ngi préparé troisième édition bi nga bokk ndax aussi tamit gis nga ci lo xamanteni ni euh, jaral na la troisième euh, édition bi nga participer inshallah ñu koy préparer bu baax rek ki bokk premier bokk deux yaakaar naa bu trois jotee day gëna neex rek. <laughs> Ah, lan ngay wax monsieur Amadam si nga xamanteni ñom ñoy ñooy borom Avenir Events amal initiative bu nice bi machallah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax parce que li ni bari na ñu fi nekk ñoo xam ay autorité et tout ça mosuñoo am xelu def ko parce que jigéen ñi nekk Sénégal bari nañ ay jàmbaar joo xam ne macha allah ku leen jàppale ñu jël ku leen teg loxo rek lañ bëgg surtout waa Thiès Thiès koo gis xam ne Thiès dafa wow wow na trop mais gars yi ku ci nekk yaa ngi liggéey ci sa ruq tey lii nii dafa permettre ñu bëri xamante am nañ ci ay connaissance ñu bëri dana xam ne ah kon lii kon existé woon na Thiès aha bu ko defee nañ ñu bari nag ñu leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di naan ñaan rek ñu gën a yokk rek incha allahu rabbi kon merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal xaalis xentu xaalis na na na na suma sañoon farm de fer Lido Na na na na Tot je banken Tot de Khalis Geen toch Khalis felay dëkkee ngir mën a bay sama waar bu ma mën a jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc leen femme de faiblesse je felay dëkkee ngir mën a sama waar ngir ma mën a jàppale bépp jigéen téléspectateurs comme niñ ñu koy defee boobaak légui ñoo ngi and ak ñi nga xamante ne nii ñoom les femmes entrepreneuses les jigen jambar ah, duma def dudul ni ki nga xamante mom la togal parce que mom tamit dafa bokk ci li nga xamante mom moy mooy deuxième édition exposition des femmes entrepreneuses jigen jambar soxna ci nuy naa la. fay na la wa Sen 24. tour bi naka la. Fatou Gueye PDG First Fashion. Euh, Fatou Gueye euh, lan mooy nekkoon sa participation ci li nga xamante ne ni moom mooy exposition des femmes jigéen jàmbaar.

voilà euh, ban yek yek nga am ak lan nga japp ni que li nga xamanteni ni exposition entrepreneuse euh, les femmes entrepreneuses meun na la ko apporter. wa meun na la apporter lu bari ci connaissance bi euh, comme par exemple nit ñi bu ñu comme période bi même bu ñu amul lu ñu jëndee dañuy fexe xam contact am sa contact pour prochaine fois ñu mën am visibilité sa boutique sa marchandise comme ëllëg bu ñu soxlaa dara dañuy xam ne lii kat am na plutôt first fashion. voilà En fait y a un article la ñu ni que moom yan yan article bok mom nga ñu mëna présenter ci li nga xamante ni mom exposition des femmes. waaw first fashion c'est suñu première particularité mooy les produits Dubaï par exemple huile brute essentielle parfum de classe abaya robe de prière brodé. lépp loo xamante ne daal day dem si taaral jigéen neexal kër cuuraay naqay lépp daal mu ngi fi. plateau bi plateau bi moom pour la la moom ci secret de famille la bokk wala. waa ci secret de famille la comme par exemple plateau de rangement la au lieu nga jël sa produit teg ko si sa kaw coiffeuse directement boo ko ci tegee en même temps dalay lay jëmmal say produit

kontaan nañ gis nañ taxawaay depuis bobu tamé bañ fi nekkee ba tay amuñu benn problème suñu bagage bi bu ñuy dem fi lañ koy bay sécurité bi normal na té à chaque fois ñu ngi xool si lu ñu toogee ñun exposante ñu ngi leen di remercier bu baax. kon merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax merci. wa man aussi ma ngi leen di jaajëfal di jéggalu ci baat bi dafa xawa dé ñu kontaan nañ bu baax ci passage bi merci. merci beaucoup. Production. <laughs> Suma Sanyo, femme de fer, Laidon. No, no, no, no. Toki Banku, Conte Halis, Gento Halis. No, no, no, no. Suma Sanyo, femme de fer, Laidon. No, no, no, no. Toki Banku, Conte Halis, Gento Halis. No, no, no, no, no. Alalu Aduno, Mom de Folie Jer, Mom de Folie

Euh, di leen remercier bu baax daal nag suñu produit yi lañ leen bëggoon présenter bëri na nag xam naa ñamal leen ci tuuti rek <laughs> waaw ñu résume ko am nañ ay cotonat original am na original am na deuxième choix aussi dañuy def ay drap de lit original coton di def ay pirxa original yaa koy gis ni ay pirxa original di original amna premier choix ak deuxième choix bi aussi ay parfum de classe aussi amna fi. bii mom xana pour ñooñu nga xamanteni dañu jox ay cadeaux. waay loolu la gis nga macha allah kenn sonnatul deux lay doon. di def tamit collection privée aussi dañ koy def. nee na dañuy def li nga xamanteni mom moy collection privée. gis nga mooy parfum yi. parfum de marque la. parfum humain. Mhm. bi moom ñëpp ko xam. Amirette al Arab parfum jigéen la Amirette al Arab Mhm. parfum bu neex la. Mhm. di def ay gaam yi am classe gis nga gaam yi. Mhm. macha allah fii daal boo fi ñëwee moom. jéegi jéegi nañ ba. yaay huile la. ay huile de non non huile corporelle la. ok. sangoo pare rek. macha allah de def ko xeeñ nga xeeñ. Hmm, macha allah. yooyu la ñuy def loo bëgg rek. ngeen fi nekkal ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy couple yi. voilà parce que man depuis tout bi ma fi nekkee ba léegi am na benn xet gu neex bi daal nee naa lii moom fii rek la mën a doon waaw loolu la voilà dañu bëggoon xam aussi tamit euh, ba xam bii mooy sa première participation ci li nga xamante ne moom mooy euh, exposition des femmes entrepreneuses wala bi mooy seen deuxième édition seen fois bi mooy suñu deuxième fois waaw donc xa ak yeneen donc lan ngay wax euh, waa Avenir Events ci initiative bu am solo bi nga xamante ne am nañ ko jagleel ko jigéen ñi

remercier leen bu baax. merci beaucoup kon ñoo ngi lay jaajëfal voilà fi lañuy doxé rek daal di fi tagato vraiment di wax ni vraiment suñu collaboration ak yéen neexon nañu loolu bu ñu sañoon du jeex. mais nak comme té dess dañoo agsi li nga xamanteni ne nii moom mooy ci pandaw gi duñu def dudul di leen jox rendez-vous di leen wax ni ñi ngi joxante rendez-vous légui légui fële nga xamanteni mom moy soirée ba man ami nom mbëggeel ma fassiyene tok fi nga xamanteni moy tapis rouge bi fassiyene dalal ñi nga xamanteni ñom ñoy lay jigen jambar ñu andandok ñom tay amal soirée bu ala ah, bu super ala dawme kon léegi léegi. Fatima Jam borom la seetuma d'abord euh, féliciter euh, l'organisateur de la foire euh, pour l'initiative. On ne pense pas trop suffisamment aux femmes. Quand on pense aux femmes, en général, c'est pour les aider, c'est pour les mobiliser pour la politique, c'est pour les décompter, pas pour les aider à être entrepreneurs et à être des acteurs économiques. Donc, c'est l'occasion pour nous de féliciter M. Mamarsi, qui est là avec nous. Et après, euh, reconnaître que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui réussit bien aux femmes. femmes djambar, ça atteste que il y a un élément fondamentalement important dans ce qu'on fait de l'économie, c'est le rôle des femmes. Euh, naturellement, les ménages sont tenus par les femmes, naturellement. Alors si en plus elles mettent le pied à l'étrier en euh, développement des activités économiques. C'est un concours supplémentaire qu'elles apportent au développement du ménage, à la promotion économique, à la promotion économique des femmes en tant que telles. Donc, euh, nous sommes bien satisfaits et nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous-ci pour venir voir ce qui est en train de se faire, les encourager. Bon, nous ne sommes pas très riches pour en acheter beaucoup, nous avons essayé juste d'acheter pour les soutenir, mais nous avons pris les contacts également parce que euh, il est important d'entretenir la relation euh, pour pouvoir aussi, en d'autres lieux, en d'autres circonstances, essayer, ou bien par nous-mêmes, ou bien par d'autres canaux, de, les appuyer. Donc c'était ça le but de notre déplacement. Euh, nous les encourageons et espérons que pour les éditions à venir, il y aura plus de femmes, bien plus de moyens pour les femmes, bien plus de chiffres d'affaires et bien plus de bénéfices. Parce que quand elles réussissent, c'est la nation. Quand elles font du chiffre d'affaires et bénéfices, c'est pour le ménage, c'est pour euh, l'éducation des enfants. Donc euh, nous sommes venus pour ça. Euh, c'est grosso modo, en résumé, la raison de notre déplacement ici. Mais également, Thiès a toujours été dans le secteur socio économique que comptez-vous faire réellement pour accompagner ces femmes qui s'activent toujours dans l'entrepreneuriat, l'artisanat, Même si est... on voit que l'État a mis des mécanismes et des dispositifs. Bon, il est, de la compétence également de, des mairies de, travailler sur l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Donc, euh, il y a des chapitres qui sont inscrits là-dessus, il y a des choses qui sont en train d'être faites à ce niveau-là, et il y a des structures qui accompagnent les municipalités dans ce domaine. Bon, c'est vrai que les moyens que nous avons ne suffisent pas euh, totalement pour le faire, avec euh, les maigres budgets et les contraintes que nous pose l'État en général. Voilà pourquoi quand nous voyons des mécènes comme si nous soupler sur ce terrain-là, euh, nous venons pour leur prêter main forte et pour leur dire c'était à nous de performer dans ce secteur-là. Si vous venez nous donner un coup de main, alléluia, nous, saluons la démarche, nous vous encourageons et nous vous soutenons. Le reste, c'est que les municipalités et la société en tant que telle interviennent dans ce domaine. L'État est en train de faire quelque chose. on va essayer de faire euh, ce que nous pouvons faire avec les moyens du bord, mais je pense qu'il est bon qu'on pose les bons cadres, les bons centres d'intérêt, les bonnes thématiques pour pouvoir dépasser simplement la préoccupation de l'entrepreneuriat entendu, comme on vend du tchouraï, ce qui n'est pas mauvais, mais il nous faut aller jusqu'à la production en quantité industrielle. Donc à la production industrielle, euh, pas, il ne faut pas penser que c'est impossible. Et pour tous les secteurs d'activité, donc euh, euh, c'est simplement ça que nous voulons dire. Merci. Euh, dañuy euh, d'abord euh, nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan seen télé bi mais surtout nuyu te sant Momar si mi nga xam ne bii moo am xelu lii ñu koy encouragé bu baax di ko félicité lii ñun mënuñu woon bañ fee ñëw ndaxte jigéen ñi dañoo téye kër yi ci biir kër yi bu ñu génnee di doxal koom di taxawal entreprise di taxawal entrepreneuriat yon la pour ñu jàppale leen ci li ñu mëna jappalé mais yon la aussi fu ñu taxaw ñu mëna ci leen ñu mëna leen fa fekk ci ndax ñom seen njariñ seen bénéfice defuñu ko seen poos ci ménage lay dalwat ci kër lay dalwat donc ñi ngi dimbali borom kër yi ñu ngi dimbali njabot gi ci éducation ci formation ci walu yoy yëp donc suñu taxaway fi danaka obligation la wareef la moo tax ñu ñëw andi ko fi euh amuñu nak kom guy tax ñu mëna jënd lepp lu ñu gis parce que lepp lu ñu fi gis jigéen di ci liggéey amna solo amna importance bu ñu mënoon a yanu lépp yóbbu yanu lépp yóbbu xëy na suñu doole demewul noonu liñ ci mën a wut wut nañ ko ci barkeelu ci mais li am solo mooy am contact yi nga xamante ni bi moo ci war pour ci beneen anam ci yeneen jotaay ñu mën la xool ndax ñun suñu bopp dañuy ñëwaat ci seen ci ñoom wala dañ leen di booleek ñeneen loolu bokk na ci li nga xam ne mën nañ leen ko jàppale euh, du lenn lu mu wax femme jàmbaar euh, amul naatable que jigéen ñi toog fii mënoon nañoo nekk ci leneen tey kenn dajalewu leen ci tàccu kenn dajalewu leen ci ne ci diw laa far dañ leen dajale pour wax leen ne leen da ngeen war a créer de la valeur ajoutée ci loolu lañ nekk ni tey ji donc dañ ngi leen ci encourager bu baax a baax a baax euh, te di wax ni euh, les municipalités am nañ loi lu ñu ci war a joué ci seen wàll euh, dinañ ko dox dinañ ko dox donte donte dooley municipalité demul noonu donte état ci lu bëri yombalul noonu mais du tere liñ ci war a dox ñu dox ko ci pour pour jigéen ñi mën a nekk de véritable acteur du développement économique

il faut nga encourager ñi nga xam ne bii am nañu mat bi tax ñu dugal seen loxo euh, ñi ko def euh, ñu ngi leen ci encourager bu baax a baax a baax euh, muy bàyyi Laye di Abdoulaye Dieye ay doomu dëkk bi lañu war na leen ñoom bu ñu amee loo xam ne dafay jariñ doomu dëkk bi ñu dugal ci seen loxo ci anam bi ñu ko mënee donc dañ leen ci encourager di leen ci féliciter di leen wax ni ñii fi teg ñii fi toog nii ay doomu dëkk bi lañu li leen di jariñ liñ ciy for ci njaboot yi lay dellu. Euh, bu ñu mënta taxawee lépp nañ leen gunge may leen doole may leen fit loolu lañ def ñoom donc ñu ngi leen ñuy ñaanal sa yàlla yokk seen kattan yokk seen mën-mën te bu ëllëgee tamit yeneen doomu Cees yeneen nit yu dëkk ci dëkk bi jël seen loxo dugal ko ci euh, mu gën a rëy lii euh, gën a jur njariñ lii bien sûr ñu li xew tey xeebuñu li fi am mais am nañ yaakaar buñ ci defee suñu doole ñun ñëpp dinañ romb fi incha allahu rabbi jërëjëf hello big up guys Assalamualaikum. man la Merin Jai, maa ngi ak waa Assalamualaikum. jàmbaar. man la Amina Abed maa ngi akwa jigen jamba. yes hi guys. Ini a am fii Depa jigen. ci jigéen jigen Jamba yi jigéen ñi nga xamante ne ñoom dañ leen sargal warmaal leen suturaal leen ñu ñu nara dem jigen leen leen.